partout au Sénégal nit ñu mobiliser wu nañ ñëw participer ci lancement bi ñu lancé la coalition républicaine sàmm suñu réew sàmm suñu réew nag buñ ko waxee dafa am ñaari mbir yu tax ñu wax ko bu njëkk bi mooy gis nañ ni ki fi nekk ñun sénégalais yi ñuy teg ko fi muy le président de la république Macky Sall liggéey na ci réew mi liggéey bu mucc ayib te comme liggéey na ci réew mi liggéey bu mucc ayib ñun waa coalition sàmm suñu réew coalition républicaine duñu nangu kenn di xajamal liggéey boobu nga xamante ni nii moom la président de la république Macky Sall di liggéey ci réew mi beneen bi ci topp mooy réalisation yi tey ku fi nekkoon di ko lim da nga fi toog ba suba ci heure bi te du jeex yaakaar naa ni président de la république Macky Sall ñi àndoon ak moom bien avant 2012 dafa ñëwoon proposé sénégalais yi benn programme bu ñuy wax yoonu yokkute yen ñëpp yaakaar naa ni yéen a ngi fàttaliku yoonu yokkute. te kenn ku nag gis na ni tey Sénégal mi ngi yokku kon président de la république Macky Sall naxul Sénégalais yi Sénégal donc li mu waxoon ci réew mi mi ngi koy déroulé muy la yoonu yokkute je pense que globalement loolu mooy li nga xamante ni nii mooy jëmee Sénégal mu nekk un pays émergent horizon 2035 ou même bien avant comme ni ma ko waxee. tax nous avons décidé nous membres de cette coalition la coalition républicaine sàmm suñu réew. d'accompagner le président de la République pour être les sentinelles de la République, mais aussi pour être les ambassadeurs de ses réalisations. Nous allons être les sentinelles de la République, mais aussi nous allons être les, les ambassadeurs de ces réalisations, parce qu'il a fait énormément de réalisations au Sénégal. Partout au Sénégal, partout où vous allez dans le monde rural, vous allez trouver des pistes, vous allez trouver des ponts, vous allez autoponts dans les zones urbaines, vous allez trouver le terre, rapide de transit. L'agriculture a été modernisée, la carte est là, universelle les étudiants soignants accompagnés, l'administration accompagnée, le système de santé est en train d'être modernisé. yaakaar naa ni loolu mooy liggéeyu président de la République Macky Sall lu ñuy fang kenn du ko jeex lu ñuy fang kenn li njiitu réew def ci biir Sénégal ñëpp teg nañ ci seen bët. donc le message est clair ñun suñu wax dañ koy wax ba mu leer nañ nous sommes clairs nous sommes cohérents avec nous-mêmes et nous faisons de la politique avec le sens large du terme, cela veut pour que le Sénégal soit développé, tout faire pour que tout simplement nos cités soient modernisées, tout faire pour que les jeunes soient accompagnés, les femmes soient accompagnées, une bonne éducation, la souveraineté alimentaire. Loolu mooy combat président de la République Macky la répétition étant pédagogique, nous comptons lui demandons de déposer sa candidature parce qu'il a fait énormément de Nous demandons au président de la République, Macky de déposer sa candidature parce que tout simplement, nous n'allons pas laisser des énergumènes, nous n'allons pas laisser des manipulateurs, nous n'allons pas laisser des énergumènes, nous n'allons pas laisser des, des, des manipulateurs Donc jouer sur le, la conscience les Sénégalais, jouer sur la mentalité des jeunes pour les détourner alors qu'actuellement nous sommes sur la bonne voie, nous sommes sur le véritable chemin du développement. Qu'on ne manquons na ñëpp man ko élection législative yi di ñëw ñu fexe ba jox le président de la république Macky Sall une large majorité fépp ci biir Sénégal il faut voter ben Bokk Yaakaar il faut voter la coalition du président Macky Sall il faut voter l'homme qui est le bâtisseur il faut voter pour le remplaçant du président Abdoulaye Wade celui qui est tout simplement à la hauteur parce que de signer notre charte la charte qui nous lie et qui nous permet tout simplement de travailler sur des bases claires, de travailler sur des valeurs et des principes qui nous sont propres et que nous tous nous avons accepté de signer. Cette charte est là, nous sommes des jeunes, nous sommes très engagés et je pense que ce combat, nous allons mener ça partout. Nous allons faire le tour du Sénégal, nous allons montrer les réalisations président de la République Macky Sall, nous allons former les jeunes, nous allons accompagner les femmes, nous allons financer les femmes, nous allons donner de l'emploi aux jeunes, nous allons former les jeunes, nous allons former les femmes, nous allons conscientiser les jeunes nous allons faire de telle sorte que ces manipulateurs-là ne puissent plus avoir la possibilité de drainer des foules, encore moins de les manipuler. Donc c'est pourquoi nous, notre combat aujourd'hui est un combat qui a de sens. C'est un combat qui permet de préserver la République, c'est un combat qui permet de protéger le Sénégal, c'est un combat contre la non-violence. Nous allons prôner la culture de la paix. C'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Ce n'est que la communication, programme, nous allons définir notre feuille de route et nous allons voir avec le président de la République Macky Sall sur quel angle nous allons l'accompagner, plus nous-mêmes, donc les mesures que nous avons définies et le plan de travail que nous avons adopté pour soutenir le président de la République Macky Sall. Vive la République, vive le Sénégal, vive les militants des partis engagés dans cette coalition, vive la coalition républicaine. Merci Durbel, Merci Sénégal, merci, merci responsable, merci les grands leaders, merci aux responsables, merci à tous. Jërë ngeen jëf, jërë ngeen jëf, jërë ngeen jëf.